jàngat bu njëkk mën nañoo wax ni euh, jàng daal dëgg-dëgg ci kër lañ koy defee lekkool daañu fa jël ay ay cours xale yi sax souvent duñu comprendre mais dañuy ñibbi ak seen ak seen i non compréhension waaye buñ demee ci kër gi buñ toogaatee nafar leçon yi seen mag jàppal leen seen waajur jàppal leen seen tuteur jàppal leen dëgg-dëgg mën nañu def ay résultats kon. Euh, muy parents d'élèves yi euh, muy magu xale yi euh, di nijaayu xale yi ñu veiller à xale yi di jàng ci ci kër bi ndax dëgg-dëgg jàng ci kër lañ koy defee jàngi nag ci école lañ koy defee jàng bu nekk la bi ci tegu war nañoo xool yan xale lañ bëgg former te ci loolu ñu réviser évidemment curricula yi maanaam li leen di jàngal. xool yan compétence dañu war a installé ci ñoom parce que euh, euh, assise nationale ak euh, conseil présidentiel bi ko bi ñu consacré woon dafa am ay directives yu jël te yooyu ñu orienté waa suñu njàng ci wàllu science wàllu technologie ak entrepreneur yu demee noonu donc war nañu xool dëgg-dëgg ni ñu orienté suñu njàng bi ba ak yan compétence dañuy installé ci xale yi ba mu am li ñuy wax savoir faire savoir être savoir devenir wala savoir ba mu am xam-xam loolu pour man lu am solo wala nañu xaar programme yi ñu def ñu tekk programme boobu yoo xam ne xale bi dina ko attan waaye soo ko bëggee jël exposition ngeen ko juróom fukki leçon ak ñaar euh, après leçon kii ñëw euh, philosophie yi ñëw euh, kay ba mu fe kay deux cent pages wala lu ko ba mu fees dell après mathématique ñëwagul day war nañoo xoolaat loolu ñu xool xale yi. fan lañ leen bëgg lan lañu bëgg a def ëllëg su ko defee ñu orienté teel a orienté seeni compétence ci loolu nga xam ne suñu génnee rek ci l'école bi dafay am lu ñu lu ñu waaye it euh, ginnaaw donc lañ fay euh, jàngale euh, numérique maanaam enseignement à distance lu am solo la waaw ak xaral yu bees yi loolu lu kenn mëntu ko kenn mëntu ko weddi ndax bu njëkk ñun ci suñu jamono pour nga am livre il faut nga jënd ko wala nga àbb ko wala nga dem ci bibliothèque yi mën na fa bañ a nekk da dugg ci bibliothèque boo xam ne sax boo ubbee livre bi da ay page yoo xam ni dañ koy dagg yóbbu <laughs> daan na am daan na am ci ci bi mais léegi xale bi mën na yor appareil rek téléphone wala tablette bu duggee internet rek livre bu mu tàppee mën na ko gis. te loolu avantage bu rëy rëy la donc li ñuy wax wàllu contenu c'est réglé maanaam xam-xam bi mu ngi ci ak côté de l'enfant léegi nag xam-xam nag dañ koy organiser euh, li ñu ci bëgg war a jël rek nga jël ko ci te foofu nag ci la maître bu bees war a ñëw dootuñu am maître dong jàngalekat dañuy wax am ñuy wax technopedagogue maanaam day nekk jàngalekat boo xam ni euh, non seulement mën a jàngale ba pare waaye ci biir jàngale boobu. war naa mën a utiliser mën a mën a mën a utiliser li ñuy wax ay ay kii euh, outils yu bees yi outils numérique bu ko defee mën a orienter xale yi ci recherche mën a orienter xale yi naka la ñuy euh, seggee ci biir xam-xam bu bari la nga ca la nga ca soxla loolu ñuy wax technopédagogie kon il faut ñu dem vers vers vers loolu ministère bi def na ci ay efforts yu bari ndax jàngalekat yu bari formé nañ ci ay ñu ñuy yore ay classes virtuelles formé nañ ci désormais pour man la aussi jàngat bu am am solo la jàngat bu mujj bi nag mooy bi Covid bi ñëwee ñëpp dañoo teg euh, li doon revendication 3G7 yi te revendication ci suuf maanaam day am jamono yoo xam nag ñun ñëpp dañuy bàyyi dañu jàppoon euh, jublu ci li ëpp solo loo xamante ni bilee mooy li ñuy wax intérêt général te inter général bi moo doon ñu teg lépp ci suuf apaiser climat bi dem. fexe sauver école bi te loolu mu war naa mu ngi daan nekk.